di Saliou Samb di président conseil départemental waaye ñu dénk ko li nga xamante ne moom mooy comité électoral départemental doorna ak doole li nga xam ne moom mooy euh, campagne électorale ngir faraat président Macky Sall doxantu na ci këri diine yépp yi nekk fi nga xamante ne moom mooy ci diwaanu Mbuur ñoom ñooñee nga xam ne ñoom ñooy nekk diggante askan bi ak diine ji ñoom ñëpp ci seeni kàddu ànd nañu ci ginnaaw Saliou sàmb fas yéene nag woteel ki nga xamante ne nii moom mooy président Macky Sall dolli ko nag ay ñaan waxuñu sax premier mandat waaye troisième mandat la ñuy wax ñu teew lu seeni kàddu. li moom président li mu fi def ñëpp gis na ko. boo gisee mu topp këru këru kilifa yi. mu topp këru kilifa yi. kenn ku ne mu defaraat ko. kenn ku ne mu defaraat ko. daa xam ni mënul matale ñëpp. daa xam ni mënul matale ñëpp. waaye boo defaree kër sa kii defaree sëriñam. waaye yi. defal nga ñëpp defal nga Sénégal gépp. defal na leen nag. defal nañu. xam naa sëriñ si wax dëgg yàlla. waa sëriñ si wax dëgg yàlla. ah bu ñu fayee naar bi xoromam. bu ñu fayee naar bi xoromam. kon duñu nelaw feeg wata bi paasewul. duñu nelaw feeg wata bi paasewul. ñoom ñaan rek la am. ñoom ñaan la am. yàlla nee na ku ma ñaan ma may la. yàlla ne ku ma ñaan ma may la. kon ñoom li leen waa ji defal. kon li nu waa ji defal. ah war nañoo fanaanoo ñaan yàlla. ah fi diine yi war nanoo ñaan ba bët sa. ndaxte wax dëgg yàlla. wax dëgg yàlla. Eh, ko li ko sëriñ si mébétal. li ko sëriñ si mébétal. bu ci jotee. bu ci jotee. dina sant yàlla. dina sant yàlla. dolli ko ci lu mu ko santoon. yàlla na ci jot. yàlla na ci jot amin. bu ci jotulee nag. bu ci jotulee nag. day def day def as gàcce ci sëriñ si. day ci sëriñ si. ndaxte ndax ñoom. dañ leen a yaakaar. dañ leen a yaakaar. ci yàlla. ci yàlla. bu ko defee nag defee ku ni leen yaakaare. loola mooy seen waa ji am li ñu bëgg rek yal na ko yàlla defal ci barke yonent bi mu ne tànk yooyu ngeen ñëwee mu ne lépp li nga xam ne loolu mu ngi junj ci loolu loolu yelloo na ko loolu yelloo na ko lépp loo xam ne kala ko nganduɗaa kii wut ko ndaartoowo mu ngi koye wutee ci anam bi ngeen ko wutee omo ndaarta ɗum e hono sifa noɓe ndaartirta ni kooku lépp lu mu yellool on kala ko o haandi dina ko am mawo heɓ ɗum waɗi onon ɗum waɗi loolu moo tax yéen inchallahu taala inchallahu taala eh, konngol ceernaajo mu ne ci ci kaddu sérigne bi ñimin mi timminantammo tan moom moom da koy da koy eggali rek da koy mottali kono ɓernde makko nde ko haala waaye xolam bi lu muy wax ɗum mu ne loolu so tawi ɗum humtima bu dee loolu fajuna on ganda mu ne da ngeen xam ne arde ɗo e galle ñëw fii ci kër gi tawi ɗo mawɓe fekk fi mag ñi walla wasde tawde ɗo walla bañnen fekk fi foti hen moyam allah yo allah dina faga aadi président Macky Sall ne président Macky Sall nde o anndi bumo xam ne allah ne jogoɗo rokkude mo yalla narna ko may ɗum waɗi onno fof ñamtuɗone loolu moo tax yeen ñëpp ngeen ànd ak moom allah resinta o ɗum yalla ɗule ruslo inchallahu inchallahu taala cammal en wirini tan mune musidɓe num waxee rek ah, deuxiéme mandat kam mine min kuɗani mune deuxiéme mandat ñu moom tiituji inchallah nga min kuɗi ko troisiéme mandat son troisiéme mandat la joɗo nde tanorde waxtaan ak moom ak tanor sax ɗo joɗi ñëw ɗo fii fi nga toog ay yuum foofu ak yuum moom ak yuum. ñaata ñëw nañ bi euh, nañ ñaanal leen la ñu bu ma wax affaire deuxième mandat. troisième ñu ngi koy pour mi. kon mooy ñu ragal. wata troisième mandat arde. balaa di ñëw. Macky wiyata jaaxal. mu ne Macky bëgg a dem. Sénégal foo jox doon demal pare. Sénégal ñëpp soog ci buntu pare bi ñu ne ko bul dem. <laughs> muy juróom. moom loolu lay xalaat. waaye nag. ki nga xam ne moom mooy président Saliou Samb jiite comité électoral bi mu ngi dellu si fii ci tànk yi nga xamante ne nii moom moo ko yëkkati. waaw ay ndaw lañ dañoo am tamit suñu kilifa bi nga xam ne mooy kilifa réew mi. Euh, sas ñu sas ñu parce que tamit ak suñuy am di jàmm itam sas ñu jiital ñu njiit boo xam ne euh, gënuñu leen ëpp xam-xam ëpp ñu leen juddu ëpp ñu leen dara mais comme lu ñu wax rek yàlla il faut mu ñu mu jiital. donc moo tax euh, man ak sëñ Fallou te yàgg nañ koy wax affaire baatin la mm-hmm. seen Fallou ak sëñ Saliou mm-hmm. donc yàlla def tamit jiital ñu ah, euh, ñu nangu ko nag ah, euh, fas yéene ci taxaw taxaw boo xam ne mu mot mm-hmm. ñëw nag di sàkku ay ñaan fi nga xam ne bërëb boo xam ne suñu bërëb la dama dama sawar a ñëw ci yii parce que naa ñëw di wax ci moom te lu mu ñu defal nag muy Touba muy yeneen mu Tiwaawan ak yeneen yëpp comme ça. Hmm. man de su nekkoon pour lool rek jar nañu ne nañ ko. nañ ko nañ ko ñaanalaat. billaay mu yéene yàlla mot yàlla motali ko comme ni ma na yéene la rek. Hmm. yàlla mooy motali des. Hmm. donc ñaan yooyu la ñu ñëwoon di andi si pour vraiment nga jàppale ñu si. Euh, ci ñaan yi te xam nañ sa ñaan euh, daal incha allah soo man de xam naa ne soo ñaanee ñun de du ñu rus. Saliou Samb yemul rek ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy kilifa diine yooyee ñii di jigéen ñi ak ndaw ñi tamit nee nañu Saliou la moo waral ay xumbuteef ak ay mbooloo yu bari ci ñaari ñooñee nga xam ne mooy ndaw ñi ak ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy jigéen ñi ñoom it jox nañu loxo Saliou sàmb gannaaw nag ba ñu waxtaaneek moom organiser ko ay mitin mom momé amna yo y sa nako ak ñom lan importance def quartier depuis ce matin di def porte à porte aurait aussi le programme de son excellence le président Macky Sall di wax réalisation yi limu def ci Sénégal ak limu def ci Mbour di xamal xamul ce qu'on appelle la vraie information auprès de la population et puis il di wax perspective la deuxième phase du plan Sénégal émergent parce que son excellence le président Macky Sall politique de da politique de développement politique de et infrastructure et ay les ressources humaines d'appeler ndaw d'appeler Digeni. yes. ñun option boobu la bëgg nous continuer te programme bi moom noonu que depuis ce matin yaa ngeen fii Darou Salam di def ay proximité et c'est important et puis dama bëgg tam beneen affaire boo xam ne kii moom ma koy wax la maa koy déglu c'est très important le nga wax nii le 16 février bii président Macky Sall day ñëw fii jaar si fii Mbour dama bëgg ngeen def mobilisation boo xam ne kenn du ko du am feneen ngeen ñëw ko. won ko ne ñun mbuur ñun ñoo lay fal ñun mbuur mbuur gañe gañe sax gañe gañe mbuur ne warul nekk problème mais xam ñu lan lañ lan ñu war a ut gañe avec un pourcentage boo xam ne day nganda nganda nganda ba nga xam ne suñu amoon sax feneen foo xam ne sax xaw nañ fa am lu lu motul sax ñun ñoo koy motali et c'est ça qu'on de Mbour il faut gagner avec la manière et pour ça nag bu leen xeeb kenn képp koo xam ne mu ngeen ko ñëw mu jàppale ñu mu yore kàttam xolal tëdd leen mu jaar seen kaw grawul jaxal nañu ko président Macky Sall jaxal nañ ko nañuy masla nañuy neex deret di wax ci affaire président Macky Sall bañu ñew votel ñu ñun loolu lañ soxla du deug ñu continuer liggéey Sénégal bi Sénégal jëm kanam ma ngi leen di gërëm di leen sante mu melni fi ci diwanu Mbour ki nga xamne ne moy jité comité électoral départemental bi di Saliou Samb dorna na campagne am ak doole mu fassiyene nak nee na jàppe ko nii ngir falaat Macky sàll ci score bu mag bu xam ne nii Mbour moo ci ëppale fépp ci Sénégal waaye nag ci premier tour